asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy bàyyi xel fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu tey nag eh, dañu ñëw ci li nga xamante ne rek moom mooy 17 safar bi ngir nag xamle leen li nga xamante ne rek moom mooy résidence eh, Khadim Rasoul résidence Khadim Rasoul nag eh, ñetti résidence la am na bu nekk fii am na bu nekk feneen mais ñun ñu ngi fii ci biir Touba nekk ci bi nga xam ne moo nekk en face juma bi donc li nga xamante ni rek moom lañ leen di dëttal mooy naka la résidence bi di doxee parce que nag résidence bi ay gan lay dalal ñi nga xamante ni dañuy jógee jógee ci yeneen i tarixa ñëw yeneen i réew ñëw ngir nag euh, euh, li nga xamante ni moom mooy joote màggal gi loolu moom mooy waral nag dafa laaj organisation naka la résidence bi di doxee yan dispositif la ñu jël ren yooyu yëpp dañuy àndandoo ak yéen ñu daal di koy découvrir avec la complicité de Biram Xari Ndaw ñu ànd ak yéen ci ni mu gën a yembee ngeen xam exactement résidence Khadim Rasoul naka lay doxee let's go Biram waaw résidence bi mooy barab bi nga xam ne nii délégation yi nga xam ne ñooy ñëw di màggal si lu mel ni tarixa yi ak yeneen délégation religieux yoo xam ne dañuy jóge ci yeneen réew yi si ñëwee fii la leen sëñ bi di dalal ñun la leen di dénk nag ci wàllu bernde yi waaye ñaari résidence la muy bii ci jumaa ji ak bi nekk Daaru Marnaan fu ci nekk itam ay appartement yu wuute moo fa nekk ak ay chambre yoo xam ne nii yu mucc ayub la lépp nag pour préparation gan ñi rek. waaw loolu yaatu na waaye ñun ci pàcc bi ñu féete rek ci lañ mën a wax mooy wàllu wàllu bernde yi nga wax naa la sànq ne la am na ñoo xam ne ñoo yore wàllu restauration bi ñoo ñëpp ci ñun lañ parce que suñu effectif mu ngi toll ci 500 euh, personnes yu séddali ko ñoo xam ne ñii wàllu restauration la ñuy def ñu ñoo yore wàllu seddale ñooñu bu ñu toggee ba pare ñu ñooy ñëw séddale soo xoolee ci kër gi 70 personnes a ngi fi yoo xam ne nii ci appartement yi lañ nekk fii ngay ma taxaw ni salle euh, restauration la ak étage la si suuf ak si kaw léeg yenn gan yi nga xam ne dañuy ñëw ziar rek dem bala ñoo dem fi lañ leen di andi berndeel leen ba pare ñu soog a dem mais bu dee gan ñi kenn ku nekk dañ lay fekk sa néeg fi nga nekk yóbbul la li nga xam ne ni moom nga soxla li ñuy teeroo gan gi nag mooy sàmbur boo ci dem di nga fa fekk sijaara ak kurus ak kaamilu alxuraan ak frigo boo xam ne itam danañ ko fa defal ay xéewalam yi nga xam ne ni moom lay xéewloo bàyyi fa itam benn dongo boo xam ne nii lépp loo xam ne lu mu soxla woo la wala lu mu yitte woo kooku mën na koo doxal doxal yitte yooyu noonu loolu la ñuy teeroo gan ñi ginnaaw loolu itam nag bépp xeetu bernde boo xam ne nii nit dina ko yitte woo moom des na ko jëfandikoo fii ndax mun naa leen wax ne 2008 ba léegi ñu yore wàllu organisation bii benn yoon la gan ñëw laaj lu mu soxla te amu ko te dañoo dem wuti ko te muy fera passé mooy gan gu ñëw yor yéeram def ko ci valisam mu xaw a froissé mu war a dem cérémonie ba laaj ñu ndax am nañ feer amuñu ko dañoo dem jëndi ko depuis boobaak léegi nag dañ ne moom ganu kër sëñ Touba warut laaj lenn loo xam ne ni amul si kër sëñ Touba ji loolu moo tax lépp loo xam ne nii lu nit di soxla woo la gan ba ci salle de bain fa duggee sarbet pâte dentifrice lépp saabu lépp ba ci njàmpe bi nit ki di sangoo lépp dañ koy jënd préparé ko ngir rek gan gi bu xese ba dugg ci biir kër gi moom dara du ko manqué wàllu bernde itam lépp loo xam ne ni moom la yittewoo parce que ay ñam yu wuute lañuy la ñuy togg lu ci nekk moom li mu ci yittewoo rek lañ ko ciy jox loolu mooy li nga xam ne noonu la ñuy noonu la ñuy waajale fii gan yi waaw en tout cas ni ñuy liggéeyee nag heure bu ñu xëyee bala ñoo joxe ndekki dinañ xam personnel bi fi fanaan ñu jox leen ndekki bala ñoo joxe añi dinañ xam nombre personnel bi nga xam ne ñoom ñoo fa war a añee reer bi itam noonu parce que loolu mooy tax bu ñu paree ñu mën a xam ne personne bi nii la toll presque ay 700 personnes yoo xam ne ni dañuy dal fii ci biir kër gi lii lañ leen jox ci bernde ñu mën a yokk parce que yëfu Sëñ Tuubaa day su fekkee da ngay joxe benn te xamoo ñi ngay jox seen effectif nu mu tollu xëy na yokk gi day day day xaw doy waar day xaw doy waar waaye daal ci biir kër gi daal moom li wétte wóor mooy amul benn gan boo xam ne mës naa toog añam manqué wala reeram manqué ak fu mu mën a jóge fii ba timis waxtu wu gan ñëwee bu ñu fii ma jox leen lu lekk reer bi itam bu ñëwee ba 5 heures de matin heure bu gan agsee waa xidma dinañ la dem dalal la ba pare ñëw ne ma délégation sàngam ñëw na nombre bi temps la mooy yóbbu fa xéwal yi nga xam ne nii moom moom mooy moom mooy dafa war voilà waaw. waaw jërëjëf ñii def loolu nag mooy daayira wilaaya daayira wilaaya daayira buñ ko waxee daayira wilaaya buñ ko waxee mooy daayira boo xam ne nii benn daayira jiitu ci daayira yi. fédération groupement religieux culturel disciple de Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne fédération la boo xam ne Serigne Cheikh Gaynde Fatma bii sët bu njëkk ci Sëñ Touba moo ko taxawal daayira boobu mooy dox ba tey. sëñ Mbacke Soxna Lo ñëw dugal ci wilaya mooy jeunes yi wilaya femme ak wilaya jeune ñoo sol baxa palmaani loolu ñëpp xam nañ ko waa Daaru Xuddoos suñ la waxee Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ma wax la sëñ Mbacke Soxna Lo ne la ñi ñoo yoree wàllu bernde yi sa war naa dal màggal gi ñetti ñetti cër la mooy jaamu yàlla sant bernde bu ci ëpp doole te sëñ Touba doon wax ko ci soññ ci nit ñi nit ñi di ko jafe mooy wàllu bernde bernde boobu nag lañ ñu dénk ndaw yi ñu ko dénk nag dañ leen a tàggat ci yar ci teggin ci mën a maslaa ak nit ñi ci mën a jaxasoo kilifa suufeel sa bopp itam ba kilifa gu mën a ñëw ak nit nu mën a ñëwee rek nga mën koo accueillir mën a dal ak moom loolu moo tax ñu tànn ñu bàyyi ñu fii ci kër Sëñ Tuubaa yi mën nañoo wax suñu bopp ne bokk nañ ci ñi sëñ bi gën a sopp ndax gan yi mu gën a sopp mooy ñuy ay nawleem doon ci diine bu ñu ñëwee ñun lañ tànn ñu leen leen berndal loolu moom mooy li nga xam ne ni moom la ñu moom la ñu nekkee fii ci kër gi waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal yéen tam. gannaaw bu ñu nuyoo auditeurs et auditrices yu leeral di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yeneen ko fi teewal di nuyu mboolem ñi ni seetaan ak a déglu ci àdduna bi mbokk mi wax ak yéen Ibra Kane la tudd bokk ci daayira wilaya dëkk fii ci Touba bokk ci comité de organisation Grand Magal de Touba bi Cheikh du Bassirou jiite ci ndigal Sëriñ Mountakha Mbacké togg yi juróom-ñetti waañ la juróom benn waañ yi ñi ngi togg lu jëm ci ceeb ay xeeti wàjji fiiri xeet yooyu ñaari waañ yi ñooy miss yi nga xam ne ñooy defar ay miss fii ci résidence Seexul Xadim bi ci jumaa ji ak résidence Seexul Xadim ba ci Daaru Manaan juróom benn waañ yooyu la ñu planifié waañ wu nekk ak war a dem mbokk mi nga doon waxal léegi mu yor hébergement bi topp ba Bassirou ñaan mi ko jiite di Cheikh Diop ndigal añ yi man bu ma ko toggee ba noppi rek moom day ñëw mu réceptionné waañ wu nekk xam naa nombre de plat yi nga war a togg nombre de bool yi nga war a togg moo xam muy ceebu yàpp moo xam muy ceebu jën moo xam muy plaatu ganaar wala plaatu waaj yi nombre yooyu bu ñëwee moom moom ba ma ko jëbalee man pare naa ci man damay may damay am may may añ man moom Cheikh dafa may may añ man togg rek laa war a def su ma toggee ba pare jëbal sama juróom-benn waañ yet euh, waañ wu nekk fa am soxna su ko jiitee soxna soosu nombre bis bu set xam na lu muy togg ci ceeb xam na lu muy togg ci ganaar lu muy togg ci xar wala lu muy togg ci jën moo xam muy jënu togg la moo xam muy jënu fiiriir mais bu ci nekk xam na bis bu set lu muy togg waaye ñuy jéglu baax ci commission bi nga xam ne ci la nekk ci njiitu Serigne Cheikh Marème Mbacké euh, moom sëñ Abdou Karim moom sëñ Baara waaye mu dénk ko ay sëriñ mbake Mbacké Madina ak euh, Serigne Amadou Ndiaye Ngeraan si Ablaye Diop sous commission yi nga xam ne nag ñoo seq liggéey bi mooy sous commission restauration bi ma yore sous commission hébergement suñ Basiru ñaan ko jiite waaye Cheikh Diop ndigal moo doon wax léegi moo ci topp commission intendant mooy lépp lu jëm ci bagage yi ganaar yeeg xar yeeg fruits yeeg boissons yeeg ndox yëpp lu jëm ci bagage yooyu ñu wax suñ Mbàkke Juuf moo ko jiite. bu dee lu yor sécurité kër gi ndax kër gi dafa laaj sécurité ndax gan ñi fi nekk mooy délégation religieuse yi. Tiwaawoon Njaasaan ainsi de suite yooyu nag dañoo laaj sécurité ndax nawle bu ñëwee da ko jàppe comme sa bopp ta ñi ni teral ñooy nawley sëriñ bi kon ñooñu day laaj sécurité moo tax ki jiite commission sécurité boobu Baye Mbacké Diouf la tudd moom laal doon boole léegi. Eh, ñooñu na kenn ku ci nekk ak la nga war a def kenn nit bokku ci sa morom looy def moo tax it ba nga ma waxee pour mu wax lépp man la kenn kon dama lay booleeg moom la muy def mu wax la ko man daal togg laay def ci Eh, waañ yi ma yore juróom benn waañ yi togg ceeb yi benn bi ñu mooy waañ numéro un dañ ko planifié soxna Faati Xariloo moo ko jiite doon soxna sëñ Mbacke Soxna Lo waañ numéro deux soxna May Mbacke doomi sëñ Mbacke Soxna la waañ numéro trois soxna ci boobu baabu la doon ab dongo ci biir kër sëñ Mbacke Soxna Lo waañ numéro quatre soxna Bigé Ndiaye moo ko jiite moom doon kenn ci njabootu sëñ Mbacke gi waañ numéro cinq soxna Xadi Mbacke moom sëñ Mbacke Soxna Lo moo ko yore waañ numéro 6 dañ ko kimlee ndax Daaru Manaan ñaari waañ lañ fay yóbbu ngir gan ñu fa nekk dañ leen dañuy togge foofu parce que le problème mooy mënoo togge fii di yem du yóbbu foofu kon ñii danañ añ du te heure bi du danañ añ ci bu dul dana weesu te duñ añ reer dana weesu te duñ reer léegi nag bu ñu yóbboo waañ mu egg fa nekk fa di togg di dugg ci bâtiment yi day gën a jàppandi moo tax ñu jël ñaari waañ muy 4 euh, ak 6 ñu dem foofu ci euh, Daaru Manaan Euh, loolu mooy wàññi bu dee wàññi yi def miche yi benn bi ku ñu wax Serigne Ñaan la fii ci ñaari étage benn bi ku ñu wax suñ Mbàkke ju fee ca Daaru Manaan kee lakk di indi fii kee mooy lakk di yóbbu ca Daaru Manaan loolu mooy nombre wàññi yi ñu or ñiit ñoo yore liggéey bi ñi ma ko seqal tam di Abdou Fatah Fall euh, Serigne Khadim Diouf euh, ak bokk yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal sëñ Moustapha Diouf ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñuy ay jàmbaar yoo xam ne ñoom ñi kenn ku ci toogoon mën a def lii ma def dama leen a xool gisuma leen waaye waa xam nga day ñaari étape première safar ba quinze safar sëñ bi dafay nekk ay gan di fi ñëw loolu benn daayira bu ñuy diiwaan moo ko yore moom mooy yore un ba quinze ba quatorze ñun nag quinze boobu ca lañ ni mooy démb ci vendredi bi ca lañ ni démarré def 15 safar 16 safar 17 safar 18 safar 19 safar un jour cérémonie officielle bi buñ toogee añ togg reer ba noppi nag ca àllarba ja di ndékki li ci la nii tàggatoo gan ñi kun jox ndékki àllarba daal mooy sunu tàggatoo yow waaye juróomi fan daal dañ la ko jox añ jox ko reer jox la ko ndékki waaw budget bi ñun xam nga ñun dañuy defar dañuy defar programme defar suñu plan d'action bu ñu defee plan d'action commission yi ñu ci def yëpp def seen plan d'action ndax comité bi du organisation rek am na yeneen commission santé hygiène euh, euh, ak sécurité Euh, hydraulique ak mel noonu kenn ku ci nekk waaw ñoo ñëpp boo ko boolee mooy doon budget global organisation nag ñun budget restauration daa dugg ci biir budget bi ñun plan d'action rek la ñuy defar am na loo xam ne nature la ñuy jox par exemple bëgg naa man euh, juróomi téeméeri xar ñuy jox ma juróomi téeméeri xar espèce bëgg naa juróomi junniy ganaar ñu ne ma ganaar am na ma ne bëgg naa boisson ñu ne ma boisson am na ma ne bëgg naa fruit ñu ne ma am na ma ne bëgg naa ndox ñu ne ma am na kon yeeg yu sew yi des la ñuy jënd andil la loolu moo tax budget bi du neex am budget bi Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Abdou Khadir mi mooy coordinateur magal gi moom la yàlla dogal mu jaayante ko ngir liggéey maamam la moom nag fu mu koy jëlee moo xam mook sëriñ bi maamam Serigne Touba waaye moom mooy démarche budget lépp moo koy génnee dañ ko jox ñun ñu liggéey commité bi yëpp commission bu nekk sa budget ci sëñ euh, euh, Bachirou Mbacké mu Cheikh Abdou Khadre ca lay jógee. waa xanaa di sant bu baax leeral ndax li ngeen def am na solo ndax am na tey ñoo xam ne ca la ñuy xam ne màggal gi doon doxe te euh, leeral day am lu bari lu muy leeral ndax mbir bu leerul rek lëndëm ñaara loo gis nag problème am fa rek ñàkk leera ko waral. kon nag bu yàlla dogalee yéen ngeen ñëw ñu ngi sant tàmbale ca directeur ba yéen ñi nga xam ne yéen fi teew ci euh, taxawaay bi am solo ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla nañ fi teew nagal déwén te euh, sud biir yàlla na ko yàlla def muy ab télé bu ànd ak rajo la ca war yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen def fii nag daanaka ñu ngi toll sécurité ñi ngi tool ay cinquante trois euh, éléments fii ba gi ak gaaras Dakar. léegi nag bu ñëwee daanaka lépp loo xam si ma mi kaaraange la ci kër gi muy ci bunt yi ak porte yi ak lépp fi gan yi nekk daal ñun loolu lañ euh, kii pour sécurité quoi waaw pour jël ren waaw jël nañ euh, kii boo xam si pour euh, bëgguñu benn kii daal nu koy waxee sax bëgguñu benn càmbal cambal bëgguñu ay nu ñu koy waxee jël yëfi jàmbur rek yëpp daal dañ koy kii daal. waaw yenn saa dañuy dem ba ba ba guddi ñu dugg ci kër gi xool raxas génne après xool waaw. waaw gan yi rek bu ñëwee ñun li seen wàll mooy ñun ay sécurité lañ ñun wàllum port rek lañ lañ lañ lañ kii bu ñu xoolee kenn ku ne euh, bats lañ na jox léegi bats bi ñun ci lañu kii ku yor bats na ñun mënuñoo xam yow fan nga bokk. waaw waa ilaa kon euh, délégation bi nga àndal moom la ñuy jox benn carte boo xam si moom mooy wan ne kii kii kii ci la bokk kii ci la bokk. ndax sécurité moom li koy dimbali mooy moom mooy carte waaw bat si waaw loolu loolu la ñuy dox ñun. oui oui man Balla Ndoye lañ may woowee nekk nag ci cellule de communication bu wilaya euh, man maa yor tout ce qui est parlé ñoo yor sous commission boobu waaw nekk ci màggalu Serigne Touba gi nga xam ni mooy 18 safar. Euh, kenn ku ne xam ni tam la fédération des groupements religieux et des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba dénommé wilaya euh, dañ leen di séddale ci l' ensemble yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Touba. fii ci résidence bi jàkkaarloo jumaa ji waaye tam ñu nekk ci bii nekk Daaru Marnaan foofu la ñu waaw ñaari résidence ñoo nekk biir Touba am na beneen mais ñun ñaari résidence rek la ñu foofu la ñuy amalee suñu liggéey ñoo yor restauration bi ak hébergement bi ci l'ensemble des résidences waaw euh, dañuy ñëw buñ ne 15 safar la ñëpp di ñëw euh, ñu installé wu ci résidence yi départagé euh, hébergeurs yi kenn ku ci nekk xam appartement yi bi nga yor ak sa ay membre yi nga xam ne ñoom nga ko seqal ngeen départager tâche kenn ku ci nekk am loo liggéey ñii ñooy yor wàllum euh, maanaam ñooy réceptionné lekk yi maanaam restauration bu ñu toggee ba pare am na ñu koy réceptionné fii ñoom ñoo koy daggale bu ñu paree jox ko ñuy héberger ñoom ñoo xam seen i gan ak ni ñu koy séddalee ci biir chambre yi euh, séddale ko ba nga xam ne gan ñëpp kenn ku ci nekk li nga war a jot da koy jot muy ci que ça muy lekk muy naan muy ni ngay nekk ci néeg bi muy propriété bi ñoom ñooy maanaam daal ñooy assurer lépp ñoo koy bale ñooy defar euh, gan gi tam lu mu soxla ñoom lay woo ñoom ñoo koy jox noonu la ñuy liggéey ci bi. waaw comme d'habitude nag ñun daanaka amul lenn lu bees parce que en général mën nañu wax dañuy dañuy améliorer rek muy xool xëy na peut-être. Euh, lu doxul bi yoon ñu changé ko wala ñu xool beneen mois mais nag euh, changement bu majeur mu amul ci vraiment parce que tam euh, liggéey bi du tay lañ ko commencé di def depuis Serigne Saliou ba léegi ñun ñoo ko yore donc amuñ ci benn jafe-jafe à chaque fois rek membre yi tam ñi koy liggéey xam nañ ko donc ñun mën naa ne li mooy suñu suñu spécialité ci wàllu wi la jëm tout ce qui est restauration héberge nit ak masla ak nit daal doomu aadama loolu wax dëgg yàlla yar nañ ci ndaw ñi boo macha allah ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib amuñ ci benn jafe-jafe ayca mu ngi noonu découvrir nañ exactement lan mooy résidence Khadim Rasoul découvrir nañu euh, pàcc yi nga xamante ne am na ci comi euh, comité d' organisation bi mais également surtout restauration bi ni muy demee à rappeler simplement que ni euh, fii mooy fi nga xamante ne moom la xalif bu toog di dalal ay ganam ganam yi nag bokk na si ñi nga xam ne ñoo nekk si wàllu tarixa yi waaye itam ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew di liggéey en collaboration ak li nga xamante ne moom mooy Touba ak gan yi nga xamante ne ñi ngi leen di recevoir un peu partout dans ni muy demee wàllum waañ bi ni muy demee pàcc bu ci nekk ak ki ko yor pàcc bu ci nekk ak niñ ko organiser mu nekk loo xamante ni nag organisation bu mucc ayib la laaj waaye tamit beaucoup de sous ñu fexee xam euh, pour yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan parce que nag ñun bëggoon nañu xam budget bi ça tourne autour de combien bien que nag ñoom ay en espèce la ñuy faral di jot li koy waral mooy bu ñu soxlaa tant de bœuf wala tant de mouton dañ leen koy livrer euh, lu ci mënti demee rek ñun ñi ngi fii biir euh, fi nga xamante ni moom mooy di Touba dinañu leen toppal màggal gi vous serez le temps les informations qu'il faut en temps réel incha allahu ak Leral TV jaajëfal Biram Khary Ndao ci collaboration bi di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy bàyyi xel j'adore cette résidence parce que boo fi duggee di nga xam ne bu baax a baax a baax Ahmadou Bamba am na lu rëy lu nga xamante ne liggéey na ko parce que le nombre de personnes yi nga xamante ne ñu ngi leen di recevoir yoo xamante ne jógee nañu un peu partout di leen bernde di leen euh, féexal seen xol di leen toppatoo ba nga xamante ne du ñu am benn problème diggante bu màggal gi teroo ba ni màggal gi di jeexee Euh, c'était euh, benn euh, capsule bu ndaw bu ñu leen defaloon ci li nga xam ne mooy résidence Khadim Rasoul j'espère que vous avez aimé bientôt sur Leral TV incha allah